ñuy def suufuk AIBD ba lépp yéenekaay bi dee siwaat na ci Walf Quotidien ubbi xët bu yaatu moom jagleel ko wàllu politique yéenekaay bi ne bu yeboo ñu seentu waa PDS yii ñu dugg ci gouvernement bu Macky bi ndax fi toll nii waa PDS dañoo ŋarale kenn xamul ndax ñu ci pouvoir bi wala sax ñu ci opposition bi en tout cas lu balaay élection législative yi ñu jëm surprise bu rëy ñu koy xaar ci waa PDS yi ñu dem fekk ji Macky remaniement bi nga xamante ni ñu ngi koy xaar ci nguurug Sénégal gii yéeni kaay bi dañu xamal ne fi mu nii nag ministre yi toogatuñu mana la kenn ku ci nekk yaa ngi rappi-rappi laa wax ndax xamuloo ndax danañ la maintenir ci gouvernement bi wala boog dañ lay dàq en tout cas moo di bëri na ci ay ministres yoo xamante ni ñu ngi en attente toog ci saalug Macky Sall bi yaakaar ne bokkaat ci gouvernement bi te bés bu yàlla sàkk nag ñu yaakaar Moussa ci convocation Barthélemy Diaz ci kanamu juge bi ne la 18 di ñëw soo meetul Barthélemy Diaz mii dinañ foqati mairéem bii génne ko ca biir mairie bu Dakar dàq ko comme ni ñu dàqe woon Khalifa Ababacar Sall en tout cas mu ngi def alerte tey xam le histoire mairie bu Dakar mën na la bu nekkoon film laa la wax mu ci chute bi léegi tey jeex ndaxte boo moytul mu dugg ci prison bi le vrai journal ubbi xët bu yaat na bu ñu moytul ci ëttu Yewwi Askan bi yéenekaay bi di laajte ñaari coalition yii naka la fexe ba tàqalikoo te di Benno Bokk Yaakaar ak waa Yewwi bi rawatina ci élection législative yi ñu jëm lii quotidien ne ki tàqalikoo kay ak ville bu Guédiawaye moo di Aliou Sall yéenekaay bi desuwaat ci kàddu Ahmed Aïdara yu njëkk yi nga xamante ni ko gannaaw ba amee defet bu rëy ci élection adjoint mairie bii ca biir Guédiawaye Ahmed Aïdara ci biir yéenekaay bi ne man dootul affaire ay doomi géejawaay ñu nekk ci biir mairie bii fas yéene liggéeyal géejawaay wan ginnaaw xeex beeg xuloo beeg ŋaayoo bi Ahmed Aidara ci biir yéenekaay bi di xam le ne ku jàpp ne bu géejawaay bii dafa faible jamono ji wallaay yaa ngi nax sa bopp li ñu war xoolaat kay jamono ji moo di bi nga xamante nii bàyyiwul xel majorité bi nga xamante nii farata pur la ngir maire am ko lii la ñu war a jubbantiwaat bu yaatu jagleel ko coowug marché Sandaga bi nga xamante ne nii diggante mairie bu Dakar ak commune bu Plateau ba léegi ñu koy xëccoo yéenekaay bi li ñu xam ne fi nii nag coow la yegg na ca cour suprême ndax ville de bëggul bàyyi benn yoon commune bu Plateau mu gérer marché Sandaga bii Alioune ci biir yéenekaay bi ne ñun duñu bàyyi benn yoon ndaxte am na yeneen yoon yu ñu mën a jaar ngir mën a gérer marché Sandaga bii comme ni mu fa waree Ukraine ambassadeur bi nga xamante ni moo teewal Ukraine fii ci Sénégal ci jamono bi nga xamante ni guerre baa ngay taxarnaase ndeke moom mu ngi fii di recruter ay mercenaires yéenekaay bi ñu xamante bi ministère des affaires étrangères yéegee lii dafa mer ba futu laa la wax daal di wóolu ambassadeur bii ne mën ci réewu jàmbur nga nekk laa la wax te dangaa tënku ci ay charte kon mooy lan mooy ndayu ngay jël ay sénégalais nar leen a dugal ci avion yóbbu leen ci Ukraine ne sénégalais inscrit woon nañu ci liste bii ngir mën a dem ci Ukraine dem xeex yi waaye nag fi toll nii coow la na suuf vox populi ubbi ci xët bu yaatu na ministre des affaires étrangères kay dafa recadré waat ambassadeur bu Ukraine bii moom mi doon def ay recrutement fii ci Sénégal ngir jël doomi Sénégal yi yóbbu ca Ukraine ñu dem guerre yi yéenekaay bi dañu xamal ne toll nañ ci fanweer ak juróom benn sénégalais ñoom ñëpp volontaire woon nañu pour mën a dem ca Ukraine waaye ambassadeur bi dootu ko defati ndax ministre des affaires étrangères Aïssata Tall Sall dafa yuuxu ambassadeur bii ko boppam ne ko fii benn sénégalais du fi jugee naan dem solo yéen kay ni jàmm kay boo xoolee ñu koy woote moo di laayeen yii ci diwaanu Yoof yéen kay bi dañoo xamante ne 142e édition wu appelu Seydina Limaamu Laay bii tàmbali nañ ko waaye état bu Sénégal leen ci mbégte mu neex ndax booy xool pont wu Cambérène bii mujjee nañ ko ubbi lii di yombal dem bee dikk bi rawatina pèlerin yi nga xamante ni ñu ngi waaj ñëw ci Cambérène yéen kay bi ne booy xool pont bi taaru na rafet na ba noppi nag ànd ak moo tax laayeen yi am nañ ci mbégte lool sant ngërëm nguurug Sénégal gi nga ni mujjee nañoo ubbi bi source am dafa ubbi xët bu yaatu di ñu nettali mbir bu kilifa gu mag fii ci réew mi yéenekaay bi dañoo xamante kilifa googu du kenn ku dul imaam Alioune Badara Ndao mi ñu fi doon jiiñ jihadiste yéenekaay bi dañu nettali mbir bu doy waar ne gis nga jamono bi nga xamante ne imaam Alioune Badara Ndao mii mu ngi jàkkaarloog juge bi ci week bii ñu génn ndeke am na benn doomam boo xamante ni dafa jóge ko woon Kaolack ñëw bëgg a assister procès bii ndekete ba muy ñëw dafa indaale yàmbaat def ko ci biir saagam bii yéenekaay bi bi ko enquêteurs yi laajee mbir yi nu mu fa demee moom Babacar Ndao dafa xam ne ci biir yéenekaay bi may ñëw ndakaaru njaay projet sama papa bii moo ma taxoon a jóg waaye coowug yàmbaa gii ba mu jógee dañ maa jàpp maltraité ma yuuxuma fitnaal ma ngir rek ma daal di accepté ne yàmbaa man maa ko moom Babacar Ndaw di nga xamante ni dañ ma ko signéloo maa ngi leen di waatal ci yàlla na man jànguma sëmm deux laa bàyyi jàng kon na xaw lenn lu ñu bind ci biir procès verbal bii Babacar Ndaw ci biir yéenekaay bi di xam le ne yàmbaa ñu may tuumaal na mu fi mu toll nii nag Babacar Ndaw bii di doomi imaam Alioune Badara Ndaw ca Kaolack soo moytul dana dugg ca kaso bii lu tolloog ñaari atu kaso Sénégal di ku fi amul doole yow sànku nga yow nga ñëw di assister sa procès papa ñu lay jiiñ mbiru yàmba may wax ñu la la nangul ba pare bëgg laa tëj deux ans de prison fii nag la Sénégal toll ku yeborog moytu te muslu baax nañu yend ak suba ak jàmm incha